yaakaar naa ne donc defoon nañ ko daaw euh, wax dëgg yàlla donc xam nga mu nekk benn jeune bu engagé wu bëgg pikin bëgg quartier am donc quartier tax muy sonn moo tax donc chaque année moo waral donc tey jii moom mooy mu woo xale yi fii yëpp woo ay jarbaatam woo ay rakam donc pour mun leen may ay fourniture parce que ñëpp xam nañ ne aussi tamit jamono jii dafa mett ak euh, Covid bi bi nga xamné ne tey jii galankor donc yu bari ba tax ni donc ñu bari ñak nañ ci seen liggéey ñu bari aussi tamit am nañ ay jafé jafé pour jënd ay fourniture mo waral tey donc xam nga mu def initiative bi wo ay xalé donc pour mën leen may fourniture pour mën leen renforcer ba pare daal di leen di féliciter pour nak ñu jang parce que jamono ji ñun ñëpp xam nañ ni donc ku jangul perte nga seul le travail paye mo waraloon tey jii donc xam nga ñu def.

metti ko ci am ko wut ko pour am ko metti ko ci distribuer ko parce que sokoy distribuer di nga deg lu nek di nga gis lu nek ma bëgg leen wax ne nit ki dafa wara am retenu daanaka ngalaab su ko amé dina am lepp xam nga dekk bi ni mu mel legi ku la dimbali rek santal yalla te suñu jé dimbali dafa da nga wara ñew tolo ki nga xamné mom lañu wara dimbali man nak limay wax d'abord moy ma ngi nan alhamdullilah rabbil alamin xale yi nga gis ñom ñep ñom xam ni may doxex ñom ba fuma taxaw ñu na maam maam lolu motax ma gëna sawar ci bima ma ne père defal li ma def ko parce que xale yi ñom ñom lañu sunu nitu di ëlëk ku ci amul war nañu dimbali ku ci ñak war nañu taxaw ku ci sonn war nañu defar ba nga xamne ëlëk sa coono dina wacc ma ngi remercier tout monde. di nuy euh, ñi fi tew sama papa yek sama yaay ak sama tante yi nga xamni ne nañ fi di wax ni affaire bi defoon nañ ko daw joxe won ren nak xawna na am euh, touti retard mais juste que bëggoon dajale lu gëna bari la rek. mu amon loo lo xamanteni amon nañ ko daw parce que ren xam ni mo gëna metti surtout ak fièvre bi nga xamni moy Covid bi dafa laal ñu bari ñi nga xamanteni dañ doon liggéey sax tuñu boo gisee nag ñu koy def mooy ñun tey yàlla def na mën naa ne amuñu dara mais yàlla may nañu tuuti connaissance connaissance boobu nag ñu yàlla may la ñuy rek parce que tey dañu gëm ni solidarité mooy tax mettit bi wàññeeku tey nit ñi bu ñu jàppalantee rek affaire yi dina du du metti ci kenn loolu moo tax ñu koy def pour aussi tamit dañ koy def tamit pour wane exemple ñeneen ñi nga xam ne bu ñu demee ba euh, toll fenn fi walla am fenn fi ñu gersu seen gox ak ñi ñu dëkkal surtout parce que loolu dafa am solo say dëkkandoo da nga leen war a gersu boo amee bu yàlla mayee yenn yi nga séddoo ak ñoom parce que tey képp kuy laajte fi nga dëkk la ñuy ñëw laajte nanga mel ñi nga dëkkal ñoo la xam donc loolu dafa am solo tey war naa ko mën def keneen tamit mën na ñëw tamit def li may def bu ma defee euh, cent kit keneen war na mën a ñëw def cent kit kon donc affaire bi métit bi day wàññeeku loolu rek moo tax euh, ñu koy def pour xale yi nga xamante ni surtout seen parents yi amuñu moyen noonu noonu ñu jàppale leen rek yàlla tax donc nag li paa bi wax rek laay wax boo gisee ñuy def lii war na tax xale yi aussi gën a góorgóorlu jàppale seen parents yi parce que frais yi dafa metti dund rek dafa metti nga bëgg ci teg fourniture loolu charge boo xamante ni la ñëpp am lu ñëpp ñoo ko mën a matal donc il faut xale yu xam loolu góorgóorlu gën a jàng jàppale seen parents yi bu baax a baax a baax a baax a baax. maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci sa tur ak ci sa sant mënu maa wax nag waaye daaw ñëwoon nañ fii man maa waxoon moo tax ren ñu ne ma naa waxaat loolu moo tax. fekke won nañ ko daw yalla nañ ko fekkee déwén diko di sante rek di gërëm ndax bu ko neexoon mu yemale ko ci bopam du dëgg wala mu tan ñi muy kii ak ñum du ki waye fi la koy indi jox ñepp bëgg ñepp ci ñepp ci lépp lañuy dimbali nak wax dëgg yalla du ci li kese. sa ba ci ma ko bu baax man miinu ko bu baax mais ay œuvreum dama koy yëg limi def ni jeune la bo xamni amul ñiko ko nak ci quartier bi ah bàcc ñu ko ci quartier bi. mais am-am lu tuuti li ngay am di ci séntu nit ñi boo amee lu bari kenn waxatu ko am na ñu ko ëppale mais initiative bi am bu muy def nii bu fekkoon ku ci nekk as tuuti boobu ngay am di ko def billaahi ñu ñi duñ sonn parce que déjà jullit loolu war a dundee li tuuti li ma am ñu dimbalante kon kenn du sonn kenn du sonn mais ku ci nekk bu li nga am da ko am banque sa biir day day métti rek te da ngay kii mais li nga am li ngay def nii yàlla si yàlla jàppale mu gën a ñoŋ yàlla ci yàlla taxaw te ñu ngi lay ñaanal. lii ngay def nii defal ko nii ñëpp ay muumin lañu am na ñoo xam ne seen parent tey seen loxo jotul seen poos tey jii avec kër cœur ouvert lañ koy lañ koy recevoir ñaan boobu dina dal yàlla lekk ñaan boo xam yàlla da koy nangu cët fu kaweef loolu laa amoon ci li may wax di leen remercier yéen ñëpp jërëjëf. samedi da daan jot yaayam mii bu ñu lekkee ganaar dañ koo fekki xuru naar barki Serigne Touba dana ko togg ba mu neex mu yekk ko képp kuy seen fii ci koñ bi rek kër papaam lañ ko daan lekk añee ji dimanche ak samedi. kon mom bu melul ni rek togn yaayam mi tranquille bax yaru juddo ci quartier bi kon mënta ñak li bacc fo jëm yanal fa yalla eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni la daan def mom so waxe mu ni bala may defal mag damay defal xalé ba paré ndax xalé ñoy magu ëlëk xalé ñoy fataliku soy lebal da ngay lebal xalé tay ñi ñu la xamé ba nga jël li tay nga xamné ci période bi la c'est le moment heure bi nga indi li moy heureum c'est le moment c'est pas tard am na parents d'élèves yoo xamante ne ne amuñu fourniture seeni doom amuñu fourniture ñun jàngalekat yi xam nañ ko ba tey am na ñoo xam ne ñu ngi leen di dàq ci kaye ak bic ba tey am na ñoo xam ne tey seeni doom ay ay seeni saak ay mbuus la ay mbuus lañ leen jox ay ay sacrifié lañ def pour am benn kaye ñaari kaye yi ñuy jox pour ñu commencer seen devoir yi déjà école yi am na ñoo xamante ne nii fi ne seen leçon yi commencé gul parce que gisaguñu kaye ñu mën a teg yoo xam ne xale yi war nañ ci mën a bind seen leçon yi ci révision lañ nekk. ñi ngi jóge ci corona vraiment bàcc ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ngi lay ñaanal aussi ñun yow xale yi nga def mais defaral nga ñu ñun tamit ñun parents ñun jàngalekat yi. dem ba gis nii lii c'est tard da ngay jël sax sa xaalis wala nga jël say kaye jox ko jox ko élève bi parce que da ngay xam ni parent bi amul kon lii nga def vraiment ñu ngi lay remercier di la ñaanal yàlla boo ci defee cent francs balaa déwén yàlla na nekk million vraiment ñu ngi lay sant en tant que jeune di jàppale koñ bi. aussi ñu lay xamal né la ci loxo kiñ ko tek yàq ko te jox na ko ku amul rek du sagoom mi maa ngi tudd Ami bo bañé feebar bi dal la na ngay ki ni na ngay jël mesure mesure barrière yi di raxatu ak sabu di utiliser gel hydroalcoolique di sol masque bo bañé bo ci boo ci bëggé muslu. ñu ci Ami bu baax a baax. soo bañee feebar bi dal la da ngay jël mesure barrière yi di raxatu loxoy di raxatu loxoy di. ciy utiliser gel hydroalcoolique yi di takk masque yi am na chef de quartier yoo xam ne tey mën nañ toog duñu xam seen quartier lu fa xew mais moom bokkul ci chef de quartier yooyu gis nañ loolu moo tax bu lu ñuy joxe dañuy ñëw ci moom ba pare daf ci sonn nangoo sonn encouragé ñu dañu won yoon bi donc moom aussi dama bëgg ngeen tàcc ko quoi parce que chef de quartier bu jara félicité la te nit ñi comprendre aussi ne ñëpp mënuñu ko matal tey état bu fi ñëwoon sax indi fi ay millions de kits du ñëpp ñooy am ñii dañuy am ñii ñii duñu am loolu mais nag affaire bi du question de jàpp jox ñëpp mais wàññil charge la rek. tey boo waroon frais 250 di nga frais 100 francs parce que di nga am boo amee euh, euh, juróom benn xale di nga am sa ñett ñaari xale ñooy mën a am wala ñett donc ñëpp mënuñu matal donc loolu laa amoon lu ma doon wax di wax ni bëggoon nañ indi lu gën a ëpp lii mais bon comme lii lañ am moom lañuy indi rek ñeneen tamit bu ñu ko mënee ñu def ko déwén tamit incha allah nga xam ne solidarité bi day day dox kenn du sonn